Je m'appelle Baba Diop. Je suis euh, le chargé de la communication de l'information du Parti démocrate sénégalais, aussi responsable des cadres au niveau de la Fédération urbaine de Kaola. Donc euh, aujourd'hui, euh, depuis hier, on a assisté à, la dissolution de l'Assemblée nationale du Sénégal par le président Bassirou Diomaye Faye. Donc euh, le PDS, toujours dans la dynamique d'accompagner M. le Président de la République, par le canon secrétaire général, monsieur Karim Wade. En tout cas, on est de tout cœur avec la politique initiée par euh, le Président de la République. Seulement avec quelques inquiétudes, avec quelques craintes. Parce que nous sommes dans un état de droit et aujourd'hui les, les députés sont élus au même titre que le Président de la République. Et maintenant, il se trouve que euh, s'il n'y a pas d'Assemblée nationale d'ici le 17 novembre, euh, où est-ce que le ministre, le Premier va faire sa déclaration politique c'est une difficulté. Bon, peut-être, euh, je ne suis pas un ferré du droit, mais je crois que peut-être les gens vont réfléchir par rapport à ça. En tout cas, j'aurais aimé quand même que, qu'on dépasse le 13, faire le, le, le, le le, le, le, DPG le 13, la DPG le 13, pour maintenant euh, dissoudre l'Assemblée nationale. Mais pour moi, je dis que c'est un, une, une, dissolution très cruelle et peut avoir des conséquences. Parce qu'il y, y, a les baires de fonds, il y a les, euh, les autres États partenaires qui peuvent euh, avoir des difficultés par rapport au, au financement, aux subventions de l'État. Donc peut-être les gens vont trouver d'autres gymnastiques pour pouvoir euh, réguler ce problème. Mais en tout cas, je, je, à mon humble avis, j'aurais aimé que ça se passe au-delà du 13. Parce que entre le 13, le 15, le 18, je crois qu'il y aurait moins de problèmes. Mais maintenant, parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant un État où on ne sait pas où il va. Parce que je crois que euh, la politique, ils ont été élus pour 5 ans. Donc, cinq mois après, il devait être présent devant le public, devant le, le, peuple, pour leur dire vraiment ce qu'il déroule pour nous. Parce que quand tu diriges des gens, quand tu es élu pour dérouler un programme, je crois qu'il est très normal de leur dire que là, je veux aller ici, je pars d'ici pour arriver là. Je crois que ça aussi, euh, pas encore fait. Mais c'est regrettable, mais quand même, on gère avec, parce que nous sommes en politique et peut-être euh, les gens peuvent corriger à ce niveau-là. Mhm. Le PDS dans tout ça Bon, le PDS, bon, j'ai dit que nous attendons l'arrivée de notre secrétaire général pour demander, c'est l'occasion de demander aux responsables de se préparer en conséquence, parce que c'est deux mois pour aller aux élections législatives. Mais nous, notre problème, c'est qu'il faut avoir la possibilité de diriger Mais pour avoir la possibilité, il faut avoir une majorité écrasante pour faire passer. Parce que on aurait entendu des fois que les gens disaient qu'il faut euh, qu'on va créer une motion de censure au niveau de, de, de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est pour bloquer peut-être euh, le, le, le, Premier ministre. Mais moi, moi en tout cas, je crois que même s'il avait ce fait, je crois que Diomaye pouvait, le PM reconduire Sonko, même s'il y euh, une, dissolution de, une, euh, en fait, une, une politique de, de, faire en sorte que qu'il y ait euh, cette situation, je crois que euh, Diomaye pourrait reprendre euh, Sonko et le remettre sur les rails. Donc sur le plan régional, en tant mhm. donc qu'est-ce que vous attendez dans le gouvernement de Non, je crois que, que je crois que Kaolak a, a, eu des problèmes à ce niveau-là parce que je vous rappelle que Karim Wade a soutenu pour une somme de 4 millions à Diomaye pour, la, pour, sa, pour son élection. Kaolak avait des problèmes parce qu'on avait reçu 150 000 francs, mais qui ont été détournés. Aujourd'hui, euh, notre credo, c'est attendre Karim parce qu'il avait dit à Diomaye, je vous soutiens sans condition. Je n'ai pas besoin de ministre, je pas besoin de premier ministre, je n'ai rien, pas de directeur. Donc je vous soutiens parce qu'il faut que le pays change. Et aujourd'hui, on l'attend avec impatience pour qu'on puisse avoir une grande majorité au niveau de l'Assemblée nationale, comme le PDS est là. Et je dis que le PDS, les structures du PDS fonctionnent. Si vous regardez dans le, le politique de, du, du, du, PDS, vous vous rendrez compte, effectivement, toutes les structures Les jeunes, les femmes, les cadres, même les artisans. il bouge au niveau du, du Et c'est comme si nous sommes dans le gouvernement, mais on se dit quelque part que notre force réside dans le fait que le PDS a ses militants qui sont là, attendant toujours l'arrivée de Karim pour pouvoir gagner les élections de 2025. Euh, analyse par rapport euh, xanaa di d'abord di remercier waa PDS parce que def naa ni nit ki euh, euh, ànd na nit ki dafay dafay dafay franc te aujourd'hui le PDS depuis Karim Wade dafa accepté accompagner Diomaye pour l'exercice pour mu euh, yóbbu réew mi fu sori parce que il avait gisoon na ne réew mi doxul mu génn mooy bari jox ko Diomaye pour jàppale ko donc il avait donné au PDS le soin ñu def campagne pour jàppale ko mais lii dafa c'était dafa xaw a dafa xaw dafa xaw a gaaw dafa xaw a rapide maanaam dafa bettaate parce que tey man li ma jàppoon mooy comme euh, politique DPG bu ministre premier ministre war def man jàppoon naa ne waroon naa mën nekk avec les ministres les députés qui sont là lu fi nekk mais moom jàppoon na ne peut-être dañ ko dégg motion de censure maanaam dañ bëgg a daaneel gouvernement donc aussi c'est des ay calcul politique la qui ont Euh, assemblée nationale la ak euh, primature donc ñun jàpp ne aujourd'hui tey euh, lépp li blocage bi rek mooy assemblée fii ak deux mois fii ak trois mois peut être quatre mois duñu am DPG te loolu dafay nekk loo xam ne facteur bloquant la te mën naa tax ba sunu état bi am ay difficulté ci bailleurs yi ñi nga xam ñoo ko war a jàppale ay financement bu war a jot ndax loolu mën na ci nekk problème maintenant comme man duma ma juriste du ma du ma du ma koo xam ne un homme de droit doo mën dugg ci yenn yi mais ce qui est naa ne xam na yàpp naa ne peut-être mën na am ay blocage maintenant comme nous sommes dans un état ñu koy diriger peut-être calculer woon loolu yëpp pour que yooyu bañ a am en tout cas ce que les gens de ça mooy que situation politique bi mën a changer les députés je crois que amatul léegi maintenant ñoom ñoo am seen cëggalugo yi ñoo jéem a def noo noo xam ne tey képp kuy sénégalais da gis sa bopp ci gestion wu Diomaye je crois que loolu moo am solo quoi. Mhm. waaw loolu moom loolu moom euh, jàpp naa ne euh, lu doy waar la xam nga politique dafa nekk booy def campagne del wax loo xam ne tey boo ñëwee nga def ko mais ñoom ils avaient l'habitude que. lii Macky Sall moo ko fi def moo tax xale yu tukki mooy def nii mooy def nii aujourd'hui dafa gën a multiplier wu donc loolu ñoo wax accident yi accident yi bon euh, goro Macky Sall bi la mais aujourd'hui ça retombe sur euh, ñoom donc ñu ñu ñu jéem a xool parce que aujourd'hui diriger c'est prévoir comme dem nga ba ne fal leen ma ma defaral leen donc ci fal bi bu ñu la falee ba pare war ngaa mën a xool askan parce que askan bi man maa ngi ci biir yaa ngi ci biir keneen ci biir bu doxee ñëppay kontaan bu baaxee ñëppay kontaan bu méttee aussi ñëpp a ko subirandoo donc ma jàppane ne aujourd'hui tey dañu leen fal pour ñu régler état bi ñu régler nit ñi ku nekk xam li ngay li nga li ngay yelloo ak sa ak nga jot ko su le plan euh, social sur le plan économique nga nekk koo xam ne nga équilibré maintenant aujourd'hui on se rend compte que jafe trop métti na mais comme dañ leen nañ leen xaar fekk ils sont à cinq mois six mois bon ñu ngi def ci ay réglages en tout cas li ñu ñaan mooy fu ñu jëmee bëgg a jëmee réew mi yàlla may leen kattan doole ba ñu yegg fa mais nag aujourd'hui li xëy neexagul mais nag comme ñoom ñi ngi ci affaire bi mais ñoom bàyyi may loxo ñu continuer comme ça lu ci nekk danañ xam suba lu muy demee. waaw kaw Cheikh Ahmad Diagne li mu leen yàqal day bari waxuma na ko dàq waxuma nañ ko wàccee waxuma dara mais boo nekkee njiit da ngay ba wan da ngay moytu tension parce que tension bu dee benn nit moo indi tension maa je crois que mën nga séq moom teraanga te jëlee ko foofu mu nekk parce que li muy li muy indi mooy ñi dañuy dal ñi bu dalee day tax sa politique gën a dox mais bu nit ñi meree te communauté la je crois Sénégal bu dee bu ñëpp du mënul yëpp sax mais y a une communauté qui est là qui est une personne comme kon kooku sa nit la moi je crois que amal noo ko réglé soit def na erreur defut erreur ñu bëri ne def na erreur nañ jéem a xool comment il faut régler parce que jéggalu mën na am waxtaan mën na am xam nga mën na faa jóge aussi yëpp ay possibilité la mais moom mooy xool tëggal guyam lan la koy doxalee mais li wóor te wóor mooy mi ngi koy yàqal politique am ñu bëri ñu ngi koy ñi ngi wax loo xam ni peut-être démb la woon ñu indi ko te bu ñu ko nee démb comme nit ki nekk ci yow nga nekk sa biir kër am sa ñema def yenn yi te waxoo ci dañu mel ne yow yaa ci ànd donc li mu wax baax na baaxul en tout bu dee ñee dañ gis ne du Cheikh Omar Diagne jomaay euh, la dafay poser problème donc ma jàpp ne mën na yàq mën na ko yàq lu bari ci politique bi nga xam ne mu ngi koy mënee au niveau du Sénégal. waaw sama dëñee moom mooy maa ngi woo ñëpp woo ñëpp parce que PDS def naa ne parti bu mag la un parti réconcilié avec lui-même un parti fi ne foo dem boo dugg ci gannaaw fongole mi danga fekk ku yore carte PDS man PDS lay xaar te je crois que Abdoulaye dafa def loo xam ne tey hmm, euh, ku ci nekk war na ci jël référence tey buñ demee ba Karim Wade Congo jël ko jox ko tous les pouvoirs pour mu corriger la kongo te Congo c'est un pays très riche ñu jàpp ne ñun Karim Wade soxal nañ ko fii et dafa am loo xam ñi ngi ko doon wax bu ñu nee la le le le un pays très riche un petit pays très riche qui est très riche ku du mën nga climatiser stade yi sa doom la nga xam ne du ko bàyyi nga ni ko demal bugguma la je crois que kooku xelam ñëwagul donc aujourd'hui tey Karim ñun Sénégal dañ ko soxla parce que li nekk ci moom moo raw baay ji. ba def naa ne ku dugg Dakar du autoroute à péage génn ñu ne ku def lii def naa kooku war nga ne kat kii naate moom génn parce que Abdoulaye Wade avait dit 2000 Dakar comme Paris autoroute ngay dugg rek génn nga ni maa ngi pari donc lu am solo la en tout cas PDS ñu ngi koy xaar de ferme bu ñëwee maa jàpp naa ne aujourd'hui tey bu ñëwee euh, député moom. dañ nekk majorité à l'Assemblée nationale nañ nañ gérer l'Assemblée nationale avec monsieur Karim di woo ñëpp nag képp ku PDS ñu dajoo nekkaat benn def benn bloc def benn say wala ne politique mbooloo la xam daal dafa wax ne am euh, gaalu dof camion dof mu ma am benn nit bu nite ñu ne camion dof bi bu la dof yëpp wootelee nga gagné mais moom benn nit bu benn carte la benn carte nga donc je crois que aujourd'hui PDS am nañ mbooloo moom am nañ capacité boobu pour faire revenir vraiment le PDS à l'hémicycle ñu jël euh, euh, euh, député yi wane na ñun am nañ doole am nañ kàttan ci biir Kaolack biir Sénégal